foo teew sëñ bee fa teew loo wax moom la sëñ bi wax waaye nag taxaw gi mu ñëw taxaw nii dëgg jubluwu ci lu dul jëmmal loolu ak dëggal loolu ci sa jëmm kon balay sa bisimilah. Serigne Moussa Abdoul Karam mu ne asalaamualeykum wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu. nee na ngi jël nuyoo boobu. jox nee na di ko jox mboolem ku ma fekk. ak ñi nee na ak ñi ñu ñu fi fekk. moo xam ñi ñu tuddee fàttaliku bis bi di leen ñaanal la. moo xam ñi ñuy fàttaliku bis bi di leen ci ñaanal la. moo xam ñi ñu cërale bis bi. moo xam ñi ñu cërale bis bi la. nee na ku fi teew ku ne. maa ngi jël nuyoo boobu di la ko jox. na mi ngi jël nuyoo boobu di la ko jox. nee na nuyoo boobu bu ko ëpp amul. kàddu yi may wax nag tey. nee na kàddu yi may wax nag tey. nee na lu nu xaw a jafe lay doon. nee na ndax sunu diggante ak Cheikh Mamadou Bassir mii. diggante bu rëy la. ah sëñ bi nee na loolu diggante bu rëy la. ci mbokk gi. nee muy ci mbokk gi. ci nawlonte gi. ak ci nawlonte gi. bi may bëgg a ñëw nag. sëñ bi nee bi may bëgg a ñëw nag. ma woo nee ma woo Cheikh Mouhamadul Mountakha. ne ko man de damay dellu Ndakaaru. ne man de damay dellu Ndakaaru. ci bisu sëñ Baara bi nga xam ne. damay dem ci bisu sëñ bi nga xam ni. sëñ Basiru moo koy toppatoo. mu sëñ Xaadim Awa Ba moo koy toppatoo. mu ne ma demal. nee Cheikh Mouhamadul ne ma demal. Basiru de. mu ne ko Basiiru dey li ma ko tuddee mooy jàmbaari Serigne Touba mooy jàmbaari Serigne Touba liggéeyaa ko nu Serigne Touba liggéeyaa ko nu Serigne Touba loolu lu la nee na lool lu rëy la waaye Serigne bi loolu yamu ca na waaye sëñ Muntaxa yemul ca loola muy uh, maam Thierno mii doon dellu nee na mii doon dellu mu woo ko ne ko nee mu woo ko ne ko demal far ma teewal ma fa kon daanaka benn teewaay. nee na kon daanaka lépp benn teewaay la. ndax xawoon na ma mën a bañ a jóg. nee na ndax xawoon na maa sax mën a bañ a jóg. maam Thierno àggale lépp. nee na sëñ maam Thierno mi àggale lépp. ndax doy la ci lépp. nee na ndax sëñ koso mii ku nu doy la ci lépp. ci digganteem ak waajuram. ci digganteem ak waajuram wi. ak sunu digganteeg moom ak sunu digganteeg moom. ak digganteem ak taxawaay bi. ak digganteem ak taxawaay bi. ndax kilifa ak murit ndax ni waajuram mooy kilifa ak murit gi. te ma gëm ko bu wér. Karam loolu ma gëm ko bu wér. nit koo àndal juróom fukki at. nit nee nit koo ànd ak fukki at nee na loolu woyoful. te gisuma dara lu soppiku ci mbiram. nee na te gisuma dara lu soppiku ci mbiram. xanaa gone gis ni nii la rek. nee xanaa gone yee gis ni nii la rek. waaye nii la woon. waaye nee na nii la woon de. kon ku tegu ci kooku. nee na kon ku tegu ci kooku. bu teewee ci jotaay. bu teewee ci jotaay. mu yable. nee na mu yable. jotaay ba doyoon na sëkk. nee jotaay booba doyoon na sëkk. waaye sëñ Basiru mii. nee na waaye sëñ Basiru xaadima ba mii. jikko ma gis ci moom. nee na jikko ji ma gis ci moom. moom rek la moom lañ tagge woon ki yàlla yónni ci ñun. nee na jikko jooju rek moom lañ tagge woon ki yàlla yónni ci ñun. wa innaka la ala xuluqin azim. muy wa innaka la ala eh, eh, eh, xuluqil azim. kon loolu moonu fi indi woon daaw. kon loolu moo nu fi indi woon daaw. ñu tuddee ko maam Cheikh Anta. nee na ñu tuddee ko maam Cheikh Anta. ak Serigne Afia. ak Serigne jii. nee na tey jii. ñu tuddee ko seen rakk ja. nee na ñu tuddee ko seen rakk ya. sëñ Cheikh Coro. muy Serigne Cheikh Coro. ak sëñ Balla Coro. ak Serigne Balla Coro. kon ñooñu faw ñu nuyu leen. nee na kon ñooñu faw ñu nuyu leen. wan leen ne. nee wan leen ni. jataay bi. jataay bi. ñoo ko moom waaye noo ko bokk. ñoo ko moom waaye nag ñoo ko bokk. dégg nañ liñ fi wax lépp. nee na dégg nañu liñ fi wax lépp. waaye nag. waaye nag. ki leen ko tuddee. nee na waaye ki ko tuddee. kuñ ko tuddewut sax nee mën naa jógloo ku dul kuñ ko tuddewut sax. ndax jataay bi boo ko xoolee. nee ndax jataay bi boo ko xoolee. seytaane amu ci aw yoon. nee na seytaane amu ci aw yoon. ndax tarixa yëpp fi ne. nee na ndax tarixa yëpp a fi ne. Sidi Ahmed mii nga xam ne moo njëkk a wax. nee na sëñ Sidi Ahmed si da baax mii nga xam ne moo njëkk a wax. lii ma taxaw nii. nee na lii ma taxaw nii. ak budul tayit. nee na ak budul la tayit. fu mu fekk njabootu Serigne Touba. nee na fu mu fekk njabootu Serigne Touba. man naa jël kaddu ga. nee na mën na jël kaddu ga. waxee ko. ni waxee ko. rawatina jataayu Serigne Mountakha. rawatina nag jataayu Cheikh Mouhamadou Mountakha. naruma woon a wax nag. sëñ Moussa Abdou Karam nee na man de naruma woon a wax nag. moom it nee woon na kaddoom dafa bëggoon a duggu ci sunu kaddu. nee na sëñ Sidi Ahmed nee woon ko it man samay kaddu dama koy dugal Mbàkke ci seeni kaddu kon noo koy wan ne ko. nee na kon si Malick noo ngi lay wan ni la. ah fii maam taxaw. nee na fii maam Thierno taxaw. mënoon ngaa ñëw rek taxaw. nee na mënoon ngaa ñëw rek taxaw fi. wax ak njaboot gi. nee na wax ak uh, njaboot gi. ndax njabootu la. ndax nee na njabootu lislaam la. wax nga ko léegi njabootu pas-pas moo ëpp doole. nee na njabootu pas-pas moo ëpp doole te loolu yaa ko wax léegi. waaye nag. sëñ bi nee na waaye nag. njabootu deret la. na waaye njabootu deret la. njabootu deret nag. nee na njabootu deret nag. njabootu lislaam ko ëpp doole. njabootu lislaam ko ëpp doole. ndax al waladu wala daani. nee na ndax al waladu wala daani. wala dul xal bi. nee na wala dul xal bi. wala dul sul bi. waa wala dul bi. wala bi. nee na wala dul xal bi. jarisul haala. nee na mooy ki nga xam ni moom mooy donnu. mooy doon mbir mi rek. nee na moom mooy doon mbir mi mooy doon baatin bi mooy doon aal bi. war du bi nag. nee na waaye waaye wala du sul bi nag. yari sul la. nee na moom alal ji rek lay dond. luy alal lan la. nee na nag luy luy alal lan la. lan la. sëñ bi nee na lan la. xaw ma ko. nee na xaw ma ko. ak moo fi nee na ak baax rek moo fi nekk. kon mënoon naa ñëw. nee na kon moom mii mënoon naa ñëw. te jataay bi. te jataay bi. kon nuyoo bi. nee na kon nuyoo bi. dafa mel ne. nee na dafa mel ni. moom la sëñ Muntaxa yabal. moom la sëñ Muntaxa yabal. présenté kilifa yi diine yëpp. nee na mu présenté kilifa yi diine yëpp. wan ni wan doomam ji. doomam ji. doom la joo xam ne. doom la joo xam ni. képp ku ko jàpp. képp ku ko jàpp. lim ko jox ci sëriñ bi. lim ko jox ci sëriñ bi. am na ci lum ci dolli sax. am na ci lu euh, lum lum lum ci dolli sax. sëñ Basiirou moo ko gën a xam. nee na sëñ Basiirou ma ko gën a xam. ndax téléphone la. nee na ndax loola téléphone la. dama ko woowaat. nee na dama koo woowaat. ne ko waaw yow sëñ Muntaxa lan ko waaye yow sëriñ Muntaxa mii lan la la wax. mu fàttali fàttaliwaat ma li ma sëñ bi wax. na mu fàttaliwaat ma li ma sëñ bi wax. kon ku fi ñëw. nee na kon ku fi ñëw. ci Sidi Ahmed mi may waxal. nee na ci sëñ Sidi Ahmed mi may waxal. na ko santal mboolem lislaam bépp. na nga ko santal mboolem lislaam bépp. te mi ngi koy sant. nee na te koy sant. ndax looloo ko tax a jóg. nee na ndax moom looloo ko tax a jóg. jataay bi nee na jataay bi amul mu yónni kii. nee na amul mu yónni kii. wala kële. wala kële. sëñ Saliou daan na ma wax ne ma. nee na Serigne Saliou daan na ma wax ni ma. léeg-léeg jataay mu yónnee fa. léeg-léeg jataay mu yónnee fa. waaye dana jataayu Serigne bi. waaye bi. Eh, bu ma xamoon ne ku demee ni yéen nga fa. bu ma xamoon ne ku demee ni yéen a nga fa. yónnee ndaw nee na ko du ma yónnee ndaw. kon bu sëriñ bi xamoon ne Sidi Ahmed a ngi fi. nee na bu sëriñ bi xamoon ne Sidi Ahmed a ngi fi. wala mbokkam yi fi ne. wala mbokkam yi fi ne. ñoo ko fiy teewal nee na ñoo ko fiy teewal. kon sëñ Basirou. nee na kon sëñ Basirou. loolu laa bëggoon wax. loolu laa bëggoon a wax. di nuyu sa xarit yëpp. nee na di nuyu sa mbooleem eh, eh, xarit yëpp. na ma ko waxee woon daaw. na ma ko waxee woon daaw. li nuyoo boobu. nee na nee na nag nuyoo boobu. noo koy teg ci loxol Ablaye Dia. noo ngi koy teg ci loxo Ablaye Dia. mu jottali ko mboolem ñëpp. nee na mu jottali ko mboolem ñëpp. kenn kenn desul nag. Ah, ñi ma fi fekk. nee na ñi ma fi ak ñi ma àndal. ak ñi ma àndal. ñi nga xam ne ci administration bi lañ bi lañ ne. ñoom itam. sëñ bi nee na ñoom itam. ñu jël nuyoo ba. nee na ñu leel nu ko. ni jàllaleel nu ko. ci ci ci kilifa yi adduna yi. ci ñi nga xam ne ñoy kilifa yi adduna yi. ndax xam ne. nee ndax nga xam ni. sëñ Basiirou lii muy woote. nee na sëñ Basiirou xaarima ba lii muy woote. bu ko sëñ bi ne woon na fi bu ko sëñ Muntaxa ne woon na na fi yem. tey la fi yem. nee na tey jii la fi yem. waaye nag kon. waaye nag kon. ku fi ñëw. ni ku fi ñëw. mi ngi ci biiram. mi ngi ci biiram. mi ngi koy bàyyi xel. nee na itam mi ngi koy bàyyi xel. bu ko télé bi wane wut. na bu ko télé bi wane wut tamit. pas-pasam. nee na pas-pasam. ak basiira bi mu am. ak ak bi mu am. dana gis ni. nee na sëñ Muntaxa dana gis ni. kooka ku ko jege la. kooka ku ko jege la. loolu laa bëggoon a nee na loolu laa bëggoon a wax. la ca des. nee na la ca des. ay murit lanu. nee na nun ay murit lanu. duñu dañ mukk di ay murit nee na te duñ dañ mukk nekk di ay murit nee na sëñ Tuubaa rek lañ yaakaar ginnaaw yónni na maam Thierno nee na ginnaaw yónni na maam Thierno nee na Mbàkke dama lay ñaan ñaari baat rek nee na ñaari baat rek mu tëje ko ko nee sëñ maam Thierno tëje ko ko ndax ma mën moom sama bopp ndax nee na ma mën a moom sama bopp ndax man li may wax sëñ bi ndax nee na li may wax sëñ bi eh, ku ma sukk ci sa wet kuum képp xam ne sukk naa ci sa weer weer wi laa koy wax di weeru koor wi. nee na weer wi laa koy wax di weeru koor wi. ñetti fan kenn mënta am ma sa wet. nee man sëñ Moussa Abdou Lakram fan kenn mën koo am ma sukk ci sa wet. nee na loolu nee nee na loolu mënta koor nag ma sukk na weeru koor nag man ma sukk fa. ki ma ko na nag ki ma ko sukk. da koo mate. nee na kooka da ko mate. nee na doonul lu nii lu nii donnu de. nee na jikko ji nga yor rek. jikkoom moo ko yóbbaale. jikkoom moo ko yóbbaale. ñuy ay murit nag. nee na ñuy ay murit nag. jox ko bopp. nee na nag ñun ñëpp ñu ñu jox ko sunu bopp. ànd ak moom fas yéene ànd moom te nee na fas yéene ànd ak moom. ci bi. ànd ak moom ci liggéey bi. kon nanu nanu bàyyiwaat xel sëriñ bi. nee na kon nanu bàyyiwaat xel sëriñ bi. Sidi Ahmed wax na lépp. nee na Sidi Ahmed si ah, waaw wax na lépp. nañ bàyyi xel nañ bàyyiwaat xel kilifa yi. nanu bàyyiwaat xel kilifa yi. li xew daal. nee na li xew daal. actualité bi xew. nee na actualité bi xew. mooy nu wuti kilifa. nee na mooy nanu wuti kilifa. te yaru. nee yaru. loolu moo jiitu woon. nee na loolu moo jiitu woon. moo feeñ mooy feeñ ba ci bisu penc ba ci bisu ba tey jii. sa la laaj. nee nag te bis bi loolu la laaj. sa bis bi na yow sa bis bi. yar la laaj. nee yar la laaj. ak wutiwaat kilifa. nee na ak wutiwaat kilifa. ku amul kilifa. koo xam ne amul kilifa. na ko wuti. nee na ko wuti. maa ngi nuyu sa kilifa yëpp. maa ngi nuyu nag yow sa sa mbooleema kilifa yi. sa nee na Serigne Cheikh Abdou Aziz euh, bàyyi naa ko fële. Euh, gis naa fi wax ci turu xalifa bi. gis naa ku wax ci turu xalifa bi. muy sëñ Cheikh Baara Laxaat. sa sëñ Saliou. nee na sa kilifa Serigne Saliou mu sëñ Xaadim Awa Ba. ak na ak ahlu Mbàkke gépp. ndax boo nee rek. nee na ndax boo nee Serigne Baara rek. ñëpp dugg nee na ñëpp dugg nañ. kokki dugg na. nee na dugg na. Mbàkke dugg na. nee dugg na. lu baax lu ne dugg ndaamit dugg na. lu baax lu ne dugg na. lu baax lu ne dugg sëñ bi nee na lu baax lu baax lu ne dugg na. kon nag nee nee na kon nag. ni nga jàppee sunu diggante. ni nga jàppee sunu diggante. Eh, jàppee nu lu rëy a rëy. jàppee lu rëy waaye jàpp naa na waaye man it eh, jàpp naa la nag. bu na jàpp naa la bu wér a wér a te man ku ma jàpp jàpp naa la. nee na te man sëñ Moussa Abdou Lakram ku ma jàpp ku ne jàpp naa la. Eh, sëñ bi rek a rëy ci man sëñ bi rek a bët. te man nga ne yaay sëñ bi. nee na te man nga ne nag yow yaay sëñ bi. ndax sëñ Tuba rek fi ne. nee na ndax sëñ Tuba rek fi ne. foofu laa nee na man foofu laa ne. dara rëyaatut nag. nee na dara rëyaatut nag. gisaatuma dara. nee na man ne gisaatuma dara. jikko laa gis. nee na jikko laa gis. ni nga téye. ni nga téye. noonu laa la téye. nee na noonu laa la téye. noonu laa téye cerno mi. nee na noonu laa téye cerno laa jëlee téye yëpp joxaat ko sëñ na noonu laa jëlee jëlaatee téye yëpp nag jox ko moom di Muntaxa. ñu ngi lay nuyu. ñu ngi lay nuyu. nag. bu waxee. nee na bu waxee. day mel ne man. nee na day mel ni man. cër bee ma andi woon. nee na cër bee ma andi woon. waaye sama kilifa ginnaaw tudd na ma la. nee na waaye sama kilifa gannaaw nag tudd na ma la. te man nag ñu bari man nañ jàpp ne sama kilifa. nee na man nag ñu bari man nañoo jàpp ni man ñooy sama kilifa. waaye man maa xam kan waaye nee na man maa xam kan mooy sama kilifa. bu la neexee ngay jàpp ni yilif nag. na bu la neexee nag yow man ngaa jàpp ni man yaa yaa ma yilif. waaye nan dem ndax yaa ma nee na waaye nan dem ndax yaa yaa ma yilifam déet. mun taxaay sama kilifa. nee na man sëñ mun taxaa mooy sama kilifa. bu ma doon raamit ñëw. nee na moo tax bu ma doon raamit ñëw. waaye sama digg yooyu su ma doon raamit ñëw. na waaye sama digg yooyu uh, uh, bu ma doon raamit ñëw. gisuma ci lenn. nee na gisuma ci lenn. nee na lu dul jikko. nee na te nee na jikkoy mbir mi. kon maam Thierno. nee na kon maam Thierno. Eh, mbir maa ngi noonu. nee na mbir mbir mbir maa ngi noonu. Eh, nga nga xamal sëriñ bi ne ko. nee na nga xamal sëriñ bi ne ko. ndax yaa koy njëkk gis. ndax yow yaa ma nee ko ñun daal noo noo ngoog. na ko sëñ bi na ko sëñ waxee rek. jikkoy murit saadix. jikkoy murit saadix. bëgg sëb sëriñ. bëgg sëb sëriñ. lu mu la digal nga def. mu la digal nga def. loolu mooy jikko euh, sifaatu saadixil murid bi ixtisaar. nee na sifaatu saadixil murid bi ixtisaar arbaxatu nazam toxoo xaw fa tiraat ak sidduq fil maxabati seexi abad soom saali am xëy sul warat wa tarku lixtiraat mutlaxan wala baat alif ma raw ma salabil li ko ni sa ni inkaari nee na gaaral. bàyyi gaaral. nee na bàyyi gaaral. rekki tànn. ba noppi rekki tànn. noo ngi ci wetam. nee na noo ngi ci wetam. nu mu ko waxee rek. nee na nu mu ko waxee rek. noo ngi ci wetam. nee noo ngi ci wetam. lu tee nu jaar jàll. nee na lu tee ñu jaar ci nam ko waxee jàll. man man mii ma faj ko ba mu mat sëkk. nee na man mu sëñ Sabla Karam ma faj ko ba mu mat sëkk. te kàddoom rek kay mën tax du ma ko faj. nee na te kàddoom képp ay mën tax du ko faj. wasalaamaaleykum nee na wasalaamaaleykum wa rahmatulah. muy tawfeex ju rëy. kenn xamul fu mu ngir jot sunu ay vidéo dangeen di abonné fii ci seen